Euh, di leen dalal jàmm ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di wax bismillah ci wàllu jumaa ji ñuy laaj ah, wàllu jumaa ji ñu ngi ko tàmbali le 20 mars mars lañ ko tàmbali 2000 waaw ah, ci wàllu biñ ko tàmbalee 2020 ci lañ ko tàmbali am ci ndigal nag ci kilifa gi di sëriñ Moussa jox ñu ndigal dik yónni rakkam di sëriñ Moodu aw Awa la mu teg xeer bi ñu tàmbali ko ci tàmbali ko ci jamono boobu nekk ci liggéey bi mars ci jamono boobu lañ ko tàmbali Eh, liggéey bi yàlla dogal na biñ ko tàmbalee ak léegi sunu borom dimbali nañu ba liggéey bi amul taxawaay liggéey bi amul taxaw waxtu wu nekk ña nga cay yëngatu suba ak ngoon yëngatu bi it ba ñu tegee xeer wi ba jamono yi bokk yi ak njaboot gi ñépp maase nañ taxaw ci def ci seen yitte def ci seen farlu ba ni ba nii mu mel tey bu ko melee yàlla ak bokk yi ak njaboot gi ñoo ko sax ak bokki jullit yëpp ñu taxaw ci jàpp ci nekk ci ba agsi fii mu agsi tey liggéey bi nag mel na ni dafa xat waaye yéene moom jumaa yéene ji rek moo am solo ñu tàmbali ko ni juma du mat bi nga xamee ni dox nañ nag ba muy toll fii ñu neñ ko ubbi di ci julli am ci ndigal ñu ubbi ko di ko julli ba ci 2021 bi ci le premier samedi bi jort nañ ni euh, février bi ci la ci la liggéey bi toll ci mat ba ci napp yi ak lépp rajo yeeg lépp weer bi bu mu toll le 21 ci la liggéey bi doog a mat ci biir gi mu des liggéey bi ci kaw foofu lañ ci toll ah liggéey bi it sant nañ ci yàlla bu baax ndax biñ ko yëkkatee ak léegi jortu nañ ni gis nañ ci ak yokkute ci njaboot gi ci tund wi yéene kilifa yépp daje nañ ci barab bi kon xëy na li fi nekk nag liñ la mën a wax lépp liggéeyub taalibe yi rekk la suba ngoon guddi bëccëg bu dee ñakk ñi ko ci war a def def nañ ko ci bu dee jëf ñi ko ci man def nañ ko ci ba mu àgg fii mu àgg kon kay dañuy sant yàlla te loolu yëpp ñu yëkkati liggéey bi di suñu jawrin di sëriñ fàllu teg ko ci suñu loxo boole kook njaboot gi topp ci suñu kaw ñu xamal la ni liggéey bii di fépp fu fi mën a ne dugal na ci loxoom dugal na ci xelam dugal na ci jëfam ba mu àgg fii te lépp ñu boole ko ak sellal ak jàpp bu baax a baax kon loolu mën nañ ko cee sànni sëriñ bi sëriñ Moustapha jël taarix bi àggale ko kon bu fekkee foofu la laaj bi am ñu bismillahi irrahmani irrahim barki borom tuuba tuuba daaru jaw acaleen murit acaleen murit ndigal jib na kon nanu faxta daw acaleen murit acaleen murit ndigal jip na kon nanu faxta daw sëriñ muntaxaak jëwrinam ju mag jadi seex musaa mbàkke maa naw mani lan la ak fan la mbir ma jib fan la tax manaa la ca daaru jaw mani lan la ak fan la mbir ma jib fan la tax manaa la ca daaru jaw la ñu dëkk ma ubbi ubbit ak juma te la vingt bii di ñëw nee na ñoo ngi woo képp kuy wuyoo islam ji ak foofu waay taxaw la ñu doon nisar ta di seen jumaa ja doon amal ta du jëf ju ndaw moo di seen jumaa jañu doon tabax jëf ju rëy la jëf du ko feete kaw tegu xeer wa daaw la baren di ren te mbir ma jëkk am tilak taxaw tegu xeer wa daw la baren di ren ci mbir ma jib am tilak taxaw kenu yaa ca biir xub ba ngi ni jar di ma saf badar wacca taar baarakal ilaa man ji juma li mu sooraram yadi ñaar ca kaw baarakal ilaa man ji juma li mu sooraram yadi ñaar ca kaw kenu yang biir mat na ñeenti yooyu nem yanja ci tar ko gis aw ëw nabi nee na woon ko tabax juma yàlla buur bi fayloo ko nekk ca kaw nabi nee na woon ko tabax juma yàlla buur bi fayloo ko nekk ca kaw moo ni man banallaahu masjidan banallaahu fil janna cam si raw moo ni man banallaahu masjidan banallaahu fil janna cam si raw tala masjidun usisa ala taqwa ca awwali yow mi ñëw tala masjidun usisa ala taqwa ca awwali yow mi ñëw ña ko doon tabax tadi ay rijaal tadi ay murit ña ca des di ndaw ña ko doon tabax tadi ay rijaal tadi ay murit ña ca des di ndaw yàgga farlu ak dogu sax ci muñ lu ñu song am ndam lu ñëpp naw yàgga farlu ak dogu sax ci muñ lu ñu song am ndam lu ñëpp ñëw wasalaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin muy tawfiq ju rëy kenn xamul fu